Wakaam nag am na ay jafe-jafe ndax village la boo xamante ni dafa am des cité nouvelles yu ko wër village ak cité nouvelles yi bokkuñu réalité loolu moo dal Wakaam moo dal Yoof moo dal Ngor moo dal Cambérène defe naa ni même boo demee plateau des na toujours ay poche ci biir plateau boo demee boru gendarmerie conk di nga fa gis loo xam ne daanaka village la ba tey mais ay immeuble war ko loolu nag li kiy wax léegi en terme de développement dafay posé wu moo tax assainissement Wakaam jafe moo tax aussi restructuration Wakaam ala kulli alin bés dina ñëw ñu wax ko et c'est tout à fait normal parce que dëkkuwaay dafay évoluer mais bu dëkkuwaay di évoluer dañoo war a fexe ba dëkkuwaay buy évoluer mën a ànd ak nit ñi ci lañu bëgg parce que il ne sert à rien ñu tabax ay immeuble dëkk ci ñu yëf def ci ñoo xamante ni xëy na dëkkuwaay immeuble arrangé wu leen wala xamuñu ko donc ñooñu da lay utal beneen façon espace donc demande yi ngeen def en terme d' extension jàpp nañ ne lu jaadu la incha allah dinañ ko plaider fañ ko war a plaider te am nañu yaakaar ni kii nga xam ni moom la ñu dénk réew mi te ñun ñu bëgg mu am beneen mandat te ñu bëgg ngeen jàpp ci beneen mandat boobu buñ ko ko waxee ni ngeen ko xalaatee yéen ñëpp ngeen bokk doon benn am nañu yaakaar ni dinañ ci am une réponse favorable li des ñu dox wax nañ ko fi muy jàmbatu Sénégal yëpp muy affaire chomage dëgg la Sénégal population bi ay xale lañu boo jëlee Sénégal xaj ko xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yëpp amuñu fanweeri at wala fanweeri at juróom ci la ñuy yëpp kon mën nañu wax ni ñii ndaw ñoo fi ëpp mais président bi muy defar plan dafa defar plan wu ñaar fukki at kon moom defarul ko boppam daf ko def pour génération yi di ñëw parce que nag kenn mënul tabax te amoo programmation moo tax mu defar plan ne nañu def nangam ak nangam plan boobu nag yàlla dogal moom bi mu ko xalaatee woo sénégal yi ñi ëpp ci ñoom te am xam-xam bu jëm ci fànn bopp ku nekk wax ci sa xalaat mu yóbbu ko bitim réew ñëpp wax ci seen xalaat ñëpp jàpp ni la nga xam ni président mi ngi koy def yéene na ko Sénégal dina bokk ci li jëmale réew mi kanam loolu ñëpp nangu nañ ko loolu moo tax ñi nga xam ne ay borom alal lañu ñi nga xam ne dañuy dimbali Sénégal nangoo jàppale président Macky Sall defal nañ ko ko ci juróomi at yu njëkk yi defal ko ko ci juróomi at yii di ñëw ba nga xam ne président tey jii du làmbatu bu ko yàlla mayee réew mi ni ñu ko yéenee incha allah dina am na loo xamante ni dina ko mën a defaral askan bi